donc cette cérémonie une importance capitale pour Sénélec, en ce sens qu'elle la matérialisation de l'axe 5 de son plan stratégique de développement 2021-2025, appelé plan Sénégal. L'axe 5 de ce plan vise la diversification et l'innovation. Parce que comme vous le savez, le West African Power Pool, le système d'échange ouest africain, avait élaboré une étude d'opportunité pour toutes les sociétés d'électricité de la CDAO en vue de leur permettre de commercialiser la fibre noire tout en laissant à chaque société la possibilité d'élaborer le modèle qui sied le plus à son contexte. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons contacté la société Huawei, qui est leader dans ce domaine, pour pouvoir élaborer ce réseau que nous disposons naturellement, parce que sur toutes nos lignes de transport d'électricité, nous disposons d'une fibre optique qui nous permet aujourd'hui de gérer notre communication et le système de protection dans le cadre de notre plan de défense. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de prendre l'excédent que nous allons maintenant pouvoir mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications. Sénélec n'a pas pour vocation d'être un opérateur, mais nous serons un opérateur en gros, parce que nous avons des infrastructures qui sont là disponibles et qu'on peut leur permettre d'utiliser. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a une couverture totale du pays en réseau de transport d'électricité, avec des postes haute tension au niveau de chaque capitale régionale. Et tout, tous ces postes sont liés par la fibre optique. Donc nous pouvons aller dans des zones où les opérateurs ne peuvent pas trouver économiquement l'opportunité d'y être. Et en ce moment, nous mettrons à leur disposition toute l'infrastructure dont ils auront besoin pour pouvoir desservir légalement les clients et surtout l'importance de ce projet qui constituent également des sources de revenus supplémentaires pour Sénélec. Et c'est pour cela que dans notre modèle, nous allons nous approcher d'une structure compétente qui a tout ce qu'il faut pour nous permettre de commercialiser et de tirer le maximum de revenus pour Sénélec et pour l'entreprise. Bien sûr, nous allons le faire et je pense que dès le départ, nous allons nous associer avec euh, des startups pour élaborer la carte que nous allons mettre à la disposition des opérateurs, mais demain également pour participer à la formation du personnel de Sanelec et leur donner l'opportunité de disposer d'un réseau performant et fiable pour pouvoir exercer au mieux leurs activités. Oui, je pense que le projet couvre l'intégralité du, du, réseau de Sénélec. Et donc le pays, nous avons élaboré une première étape qui va jusqu'à Thiès et nous allons couvrir l'ensemble. Et l'autre aspect fondamental que j'ai oublié, c'est que ce, ce, ce, ce service-là pourra aider. L'infrastructure sera également mise, en, mise à la disposition des forces de sécurité et de défense. qui en ont besoin le cadre de la surveillance du territoire et ce sera notre manière à nous de participer à la sécurité publique après avoir délivré l'électricité aux populations. Oui, le projet aujourd'hui, les premiers tests ont été concluants. Nous allons continuer et vous avez vu ce qu'on a eu faire avec Huawei dans le cadre du Magal, que nous allons continuer également dans le cadre du, du GAMU. pour pouvoir disposer d'un réseau de télécommunications fiable nous permettant de faire l'intégralité de nos opérations. donc si wolof damay wax rek ne tey jii nii dañu ñëwoon tey wane ak suñu invité yu ñu fi am yëpp lan moom lañ liggéey ak Huawei si lii nga xam ne. West African Power Pool mooy WAP bi nga xam ne société d'électricité yu CEDEAO yëpp ñoo ko bokk dañu defoon benn étude pour wone ne comme élec société d'électricité yëpp dañuy am fibre optique boo xam ne duñ ko utiliser ñu defoon benn étude gis ne mun nañ ci jëlee alal boo xam ne dina yokk seeni revenu seen koom-koom gannaaw bu ñu jaayee courant ba pare étude boobu nag dafa wone woon ne comme société yëpp ku si nekk am nga fibre optique mun nga ko jël li si des nga jox ko li nga xam ne mooy opérateur yi nga xam ne ñoom télécom la ñuy liggéey loolu moo tax bu étude bi recommandé loolu ñun fii nii tey si Sénégal ñu dem jàkkaarloo waxtaan ak Huawei ba nga xam ne dinañu mun a defaral loolu réseau bi nga xam ne léegi wër na Sénégal yëpp parce que xam ngeen ne Sénégal Sénélec réseau de transport am léegi daj na Sénégal yëpp parce que capital bu ngeen dem di ngeen fa fekk benn poste haute tension te poste haute tension bu nekk autoroute de l'électricité bi ñëw na fa donc loolu moo tax léegi bu Sénélec pare ci autoroute de électricité yi dañu jublu nag ci autoroute télécommunication autoroute télécommunication yi nag moom lañ bëgg a jël jébbal ko opérateurs yi nga xam ne fépp fu nga xam ne mënuñu fa yegg te Sénélec dem na fa déjà ñu indil leen lu ñu soxla yépp pour mun a jox seen clients yi internet pour mun a améliorer réseau téléphonique bi loolu mooy njëriñu tey lii nga xam ne moom la ñuy def mais Senelec taxawul pour nekk opérateur de télécommunication mais Senelec dafa nar a associé wu ak ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam am nañ si expertise ñu ñëw xool nan la ñuy joxe opérateur yooyu carte bi nga xam ne dina leen permettre ñu mun a gën a doxal seen liggéey mais ñun ñi nga xam ne ñooy Senelec aussi dinañu mën a permettre ñu am si alal boo xam ne suñu leen joxee infrastructure yooyu luñ ñuy fay dinañu mun a permettre après électricité bu ñuy jaay ñu am ay reneen revenu yoo xam ne dina jublu si li ñuy wax diversification de nos produits. daal euh, euh, euh, voilà loolu moo tax ñu ngi waxtaan ak yenn opérateurs yi nga xam ne presque pare nañ. et yaakaar naa ne fii ak septembre kii bi yëpp di pare dinañ mun a juboo ba nga xam ne ñooñu dinañ ñëw mun a ñëw taxaw nekk suñu digganteeg opérateur yi parce que ñooñu xam nañ métier bi xam nañ ko parce que ñun jaay courant la ñuy def bu ñu waxtaan ak ñoom ba juboo ñu permettre ñu mun a gérer aspect boobu noonu nga xam ne dinañ jàngee si moom pour que ëllëg bés bu ñu demee nag ba mbir mi dox ñu mun a taxawalal suñu bopp